département Tivaouane te su ma juumul tey ñi ngi war a nekk gën saa gàtt ci juróom-ñett commune wala juróom commune waaye tey la ñuy door programme bu ni mel fii ci ñaaxeen médecins yi nga xam ne ci parti bi la ñu bokk ak ñi volontaire u yi ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy liggéey suba ba léegi ñu ngi fii yendoo génn def naa gën saa gàtt consulté nañu lu mat juróom fukki nit te am na ci ñoo xam ne gis nañ ci ñoom ay jàngoro yoo xam ne yi ñu war a gaaw toppatoo la lu lu ko rek mën na andi ay problème donc ñooñu dama leen félicité leen encouragé ndax seen alal la ñu génne seen carburant la ñu def jël seeni oto jël seen matériel jóge Ndakaaru ba fii ñëw yendoog yéen di def liggéey boobu te xaaruñu ci fay xaar ñu fi jaa jaajëf loolu nag dafa bokk ci ñun suñu gis-gisu politique li tax ñuy def loolu mooy dañoo bëgg ndaw ñi ànd ak ñun ñu teel leen yar ci patriotisme mooy bëgg sa réew parce que ku bëgg defar réew waroo toog rek naan réew mi lan la may defaral réew mi lan lay defaral waaye ku bëgg a defar sa réew dëgg citoyen bu nekk bu xewee war na xalaat man lan laa war a def tey pour sama réew kenn ku ne bu defee ñu dajale ko boole kook li yi di def ak li keneen def loolu mun na régler problème yi nga xam ne moom la ñuy jooy ñu ne nag nañ ci teel yi parce que dañu gis ni ni ni ñu yare ni ñu ni ñu formé yi dafa mel ni li ëpp ci sénégalais ñoom jàpp nañ ni dañoo war a toog rek état moo war a def mbir mi dafa jékki-jékki rek egsi loolu bokk na ci li ñu bëgg a bokk suñuy ndaw teel yar ci ñu mën a nañ koy defee ci suñu diine di ko def ci suñuy tarixa nga xam ne bu ñu wootee ñëpp jógandoo noonu la ñu bëgg ñu teel cee former nit ñi ba fu état soxlawee état bi central comme état décentralisé ñëpp jógandoo kon loolu lu ma doon ubbee rek la gannaaw gi it di wax ne dégg nañu seeni jàmbat waaye mënoon na ñàkk daanaka mënoon na ñàkk tey di ñaan yàlla mu may ñu ñu dajewaat fii ñu daje waaye ñu daje fi ci anam goo xam ne kenn ku nekk dina am xol bu féex ni li ñu waxante woon fii yaa ngi gis mandarga yi ci réew mi ni muy doxee yàlla ñu ko yàlla defal jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah